goon sànq rek ci affaire li nga xamante ni ñu ngi koy dégg ci wàllu lomotif yi donc bari na coow bu baree bu baree bari bari comme ça Jimbori ne nuñ mun a def ñu dugal la ñu waxtaan ceeg yow. parce que yow jigéen nga aussi tamit ñun la ciy tudd te yaakaar naa ni yow. Euh, li nga def ci li nga xamante moom mooy ci wàllum reporter ku la jàppalewul warul génn yenn yi sax di ko wax euh, woon rek nga am lenn rek nga xamante ne nii euh, nga jot ñu cee leeralal parce que wax ji bari na euh, pël bu rafet. ñëpp woo la. dëgg la da koy jox cër nga wowuñu ko parce que doomu aadama doomu aadama kese la. Mm-hmm. maa ngi nuyu ñu leen di seetaan ñëpp. àdduna maanaam dafa am ñoo xam ne bëgguñu jàmbaar. Mm-hmm. bëgguñu. nit ku jàpp njaamuram. ndeysaan dëgg la. bëgguñu nit koo xamante ne duggul ci dara. Mm-hmm. bëgguñu nit koo xamante ne tey duñ ko dégg ci détails yi ñàkk fayda li ñu bëgg mooy ku ñuy yërëm. Mm-hmm. wala ku ku ñuy xam ku ñuy xam soxlaam. dëgg la. kon maanaam la. te man pour man dama jàpp ne. Mm-hmm. àdduna amul solo te dara jaru fi dara te ku la deful waxu pour man warul koo tooñ. tout à fait. ndax góor du tooñ te jullit du tooñ. man Coul de sama bàmmeel laa taxaw rusmaa wax lu ñaaw ci nit ci doomu aadama comme man. Mhm. parce que man bu ma bu ma ubbee sama gémmiñ wax ci nit lu ñaaw rek sama bopp laa ko wax. dëgg la kon am na safaan waroo koo yéene doomu aadama. Mhm. waaw ak jàmbaar aussi. tàng lañ ma mën a waxal ak jàmbaar. mais balaa kenn di ma kañ ma kañ sama bopp. Mhm. sama xol dafa rafet. damaa baax. lu ma am bokk ko doomu aadama ndeysaan te ku ma dimbale nit du ko yëg boo ko waxul du ma ko wax ba àdduna tukki mm-hmm. lu ma fekk ak ci àdduna ci teraanga mm-hmm. nit du ko yëg dimbale nit moo ma gën a yàq nit kon su ma nekkee ci milieu làmb di liggéey nga mm-hmm. jékki-jékki ñu naan lomotif làmb bi jigéen ñi journaliste yi di tëdd mbër yu ndaw yeeg di def lii xam nga loolu dafa ñaaw nga nekk jigéen nga am famille suba nga naan am borom kër ñii di la mën a mën a nuyu ñoom ñooy naan. dëgg la da waroo wax man damay wax ndax sama laaj bi mhm. pour wax la. dëgg ci wax safaan. Mhm. d' accord. Euh, euh, Pël dañoo man sama vidéo bu fekkee damaa yor lomotif. ku ko yor ci àdduna. Mhm. nag génne sama vidéo mu teg ko. ku ma sama vidéo képp ku ko gis ci àdduna sa bët day tuuru keroog dañ lay teg ci suuli la. ndeysaan mhm. mais mais mais mais mais pël bu rafet donc li yàgg nga ko wax li moom vraiment jot nañ ko miin ci say interview mooy képp ku yor sama video dina ko génne est-ce que nekkul tamit gars ci loolu lañu bëgg a jaar ba ni euh, ñi ngi ay video lomotif di la ci tudd Ah, di ci tudd ay yeneen mbër yi nga xamante ni maanaam mun bëgguma ci sax jaar est-ce nekku tamit ah, loolu waral na maanaam comme li nga wax rek da ngay doon jàmbaar ñu bëgg a teg dara sa kaw est tamit loolu bokk ci li nga daan génn naan képp ku yor sama lomotif na ko génne. waaw mais mënoon ci a nangoo liggéey. Mm-hmm. Mm-hmm. lu ma am sama yaay moo ma ko gënal. man moom maa yàq oh. ku muy ji ma yàq yaay yàqu ci àdduna ndax man lépp lu ma am sama yaay moom ko gënal massa massa dëgg la tey tey tey bu ma ne si kaw la ma tëj fi lépp dem soxla ma dara Dakar ndeysaan mm-hmm. allo kon man kenn du ma cité ci lu ñàkk fay la may toog bi doon muuma du ma muuma kenn ndax man xam naa qui je suis xam naa man maay kan góor du yab jigéen du fontoo hmm. ba àdduna su nag góor du yab jigéen du fontoo vraiment ku ma yab ci commentaire nga ma yab hmm. Hmm. waaye yàlla bëri na sutura te bàyyi naa lépp ci loxo yàlla rabbi sama waati wal ard sama dernière kàddu mooy man pël bu rafet ku am sama vidéo ci te génne woo ko baalu ma la ko àdduna ak àllaaxira na lépp génn ku ne sama vidéo na ko génne wala man vidéo yi ma yi ñu yor ci man ak yeneen vidéo yi doon génn dafa am différent nañ génne sama vidéo c'est vrai day na euh, nga ci euh, la nga jàpp ni que ni euh, pël bu rafet moo moo ci nekk da nga yaakaar ni comme ni nga koy waxee yaa ngi doxal ni nga koy war a doxee mu set loolu vraiment waa ay noon wala ñi nga xamante ni dañoo gis sa liggéey bëgg la xoxatal wala bëgg la euh, yàqal est-ce te looloo tax à chaque fois ñu naan yor nañ ay li euh, lomotifu ki nga xamante moom mooy pël bu rafet yi ne daal di ko ci tudd waaw man pël man mm-hmm. tiitaru ma ndax mm-hmm. man yàlla dafa dogal man jikko taalibe laay dund man ki ma yar xam naa ko. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. kon amul lenn am extraordinaire na fi ba mu jar yenn yi. wallaahi. bu fekkee dafa liggéey gëm sama bopp moo tax may liggéey te loolu la ku nekk di ñaan yàlla. dëgg la kenn ñaanu yàlla di tàllal sa loxo bi di ñaan ndax ku la may ñaari yoon jéppi la. bu fekkee nañ ci nekk gën di mbindeef boo ma gën fuuf loolu nañ ko ko. te daa complexe am ne ko yaay jiitu kum neex ak kum naqari mhm. ñëpp topp sa ginnaaw ma Cheikh Al Ibra Ibn Islam mhm. mi nga xamante ne mooy sama sëriñ mhm. lu ne dégg na ko sànni nañ ko xeer def nañ ko lu ne fii ku ne dégg defe lu ne fii amu fi woon kenn du ko dégg amoon na fi rek ngay dégg lu fi waay def décidé lu wax waxit la wallaahi waaye man damaa kaw Kaolack laa dëkk yaroo ci diggi daral ci be ak ak géwél ak ñeeño mhm. man wax jaaxalu ma su ma bëggul wax rek waxuma man du ma toog kenn di ma man kenn di ma waxal lu ma deful hmm, Mm-hmm. du ma ko nangu ci ñàkk fayda yoo xam am na yoo xam ne nag di nga ko noppi mm-hmm. ndax du lépp ngay wax mais day am yoo xamante ne doo ko noppi da ngay taxaw nga dëggal sa ne nañ ko génnee mu jeex loolu du dara ndax fii lan lan lañu mën a xasee nit càgg nga dëmm nga mënuñu la koy xasee leneen mm-hmm. man dégg naa lu ne mu ngi fee di lekk nit kii rek laa dégg ko te keneen tamit da ñi ma ëpp daraja dégg nañ lu ne wax nañ ci nit lu ne saaga nañ ci ku ne xale bu ndaw sax xale bu dëgg la de yaa ngi dégg <laughs> tooñ baaxul man damaa set wécc mhm. surtout série biir laa ma waxaat ko mhm. man du ma def lu bon du ma nekk lu bon mhm. képp ku may kàmbal lu bon yow yaa ciy dugg pax boobu yaa ciy dugg surux si ju suul la maa ngi jéggalu nag di leen baalu ak di leen jéggalu bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf bu rafet ci li nga xamante ni jot nga ko wax euh, Jimbori dafa mel ni nag lii lu doy waar la parce que Paul moom euh, ku ko xam rek euh, da nga koy xamee ci li nga xamante ni moom mooy jàmbaar vraiment. Mhm. man boog ci loolu laa ko xamee. Mhm. mais même jigéen la même bu fekkee li ñuy wax am na wala amul je pense que ni nekkul ne loolu war a mun a nekk actualité ba ñu ko ciy tudd comme ni nga ko waxee ak moom ni mu ko waxee bay tuur dafa yor njaboot yor yaay yor doom mhm. tamit euh, jumóor yi ban jàngat nga am ci li nga xamante ne nii Peul sa xarit nee na yow daa xam lu mu lay def looloo tax nga jël ko appel mais bëggul woon sax wax. léegi damay laajte. Mhm. ñi ne ñi tuumaal waa mhm. xam nga dañ ne dañ nañ ay vidéo waaw du noonu. Mhm. léegi ko ku ñuy wax kër si Bakary. waaw ak Adama du dëgg. dëgg la Adama du mbër kër si Mm-hmm. du dëgg. Mm-hmm. léegi ñoom dañ ne dafa am ñu ñu bokk ci waa làmb ñëw di leen ñaan. Mm-hmm. léegi waa làmb ñoom ñoo waroon tuumalante tuumalante seen biir. wala koo xam ne ni bokkul ci làmb. kan moo gën a jekk ci tuumaal. waaw ah, waa làmb xanaa. waa làmb xam nga <laughs> tout à fait léegi yow sa yoon newu ci nga mën leen a tuumaal ñoom fekk leen si seen métier. bëgg leen tuumaal léegi déjà rek loolu rek tooñ dëgg la. xam nga fekk doomu aadama nga koy. Mhm. nga koy bëgg daal. déstabiliser wala nangam nangam. Mhm. du dëgg. Mhm. léegi kan mooy aadama kan mooy kër su Bakary. kër su Bakary mooy. kër su Bakary temps yële si ginnaaw doon na fi tàgg pël. tout du noonu. léegi léegi léegi xaara. dafa doon tàgg pël di xas abu nduur te ñoom ñaar ñoo bokk benn benn tele bu ñuy liggéeyee. tout boo bu nee tagg ñaar ñoo xam ne comme ñun ñaar ni ñu bokkee télé bi nii boo taggee pël xas abu nduur saytaane nga mm-hmm. Mm-hmm. parce que ñoo bokk seen albura am na wala amul dëgg la tey mu wëlbatikuwaat ñu ne mu demaat ci pël léegi boobu façon ban façon liggéey la bëgg vi mm-hmm. benn bis di xas xas peer jaw jàpp magi làmb yi di xas di def loo xam ne boo nekkoon ci biir dëkk bi Ah, amoo pitu def du dëgg mhm. aadama moom kenn du ko jàngal ni kenn du ko jàngal kenn mhm. léegi boo toogee nga ni yor naa le motif mhm. Mansour bokk ci Mansour mooy kële te mu yore affaire parcelle bi te mu tëgg si si waaw waaw waaw mu ne Aziz Ndiaye bokk ci Baye Ndiaye bokk ci kii Assane Bawol production bokk ci xam nga ñooñu la teggi teg ne. waaw mu ne mu ne waat mbër yi. mu ne mm. mbër yi tamit yor na seen le motif. nee na Balla Gaye bokk ci. Mm-hmm. dégg nga nee na Gris Bordeaux bokk ci. Mm-hmm. nee na Modou Lo ci. Eumeu Sène bokk ci. Mm-hmm. léegi ñooñu la lim promoteur yi mu ne euh, euh, euh, kii kenn du Max Mbargaan waa léegi Abdou Khoudia lii ci xeetu saytaane la wala xeetu jaxase. doy na waar kay jumboor yi. seetat day na waar lu motivé. c'est que làmb. ñoom nag lépp lu posé na làmb est-ce xam nga nitu làmb moo koy dugal ci làmb. Hmm. dëgg la parce que léeg dañuy fekk koo xam ne bokkul ci làmb ñuy wax ñoom ñu jël ko li muy wax arrangé la nga jël ko boole ko ci làmb. te fekk na du làmb. waaw parce que tey xoola le fait que ngay yëkkati Aziz di xas makan mm-hmm. makan mbeng mm-hmm. bu subaa nga xas makan mbeng yëkkati yëkkati Mansour mm-hmm. bu nga xas Assane Ndiaye Baol production wàcce Pape Abdou Fall mais loolu